waay waay waay waay waay toog Saturne salaamaaleykum maaleykum salaam nuyu naa leen kenn ku si nekk si turam ak santam ñëwaat naa yore saw comme nga ni lan kan moo wax foofu rokoy xoro biriñoo bàyyi boor bi ni nit ñi commencé mu toll fële nekk di def ay de la kii am di dafa régler caméra am di boo si yàqee der si caméra bi dinaa bàyyi yow bu ma tax wax wax boo xam ni dafay bonde voilà bonsoir tout le monde nuyu na leen kenn ku si nekk si turam ak santam kalta mbawɗon wonde eno mo goniri toon foof yidde si somi yore saw encore une fois sur la info de la rire info de la rire nag tey nag euh, suñu plateau dafa ala dawme nag dafa ala dawme encore une fois nuyu yee Seydou moo nekk si caméra bi Seydou moom ma koy jox Seydou moo xool su ma bregee di nga ko mun génne ah Seydou yaa ngi koy génne est-ce que di nga ko mun génne <laughs> am ni moom day am ñaari caméra la am yee am di léebool la yee am di moo yor ñaari caméra yi gars yi nee nañu xaw ma budi budaanga benn booy nee na man xam naa buroon birinoo kooku budi silla budis nee nee nañ bouddhiste nga quoi saa plus tey sunu sunu sommaire de la journal dinañ dem fi nga xam ne fii nii mooy assemblée nationale ndax commission parlementaire yi commencé nañu ko fal bu ñu jógee ci assemblée nationale dinañ dem ci li nga xamante ni bii nii mooy président de maires ou bien président de l'association des maires du Sénégal ki nga xamante ni kàlla doon Aliou Sow dinañ ñëw ci ay kaawam dinañ ñëw ci tamit di nga ne rebondement rebastiniment re rejëngument de la rebos bi nga xamante ni bii amoon na. te waa saamet yi defoon ko loolu lépp ci biir journal bi lay tas tasal ak yaatali ak saf safal ak safal tafa safal ma safal xool leen sommaire bi ñu dellusiwaat tafa safal ma safal voilà comme ni ma la waxee woon euh, commission de la parlementaire yi nga xamante ne bii nii na nañu ko ñoom mu dikk ñaa ñoom ñi nga xamante ni bii nii mooy surtout la PDS ñoom ñi nga xam ne opposition bi seen parlementaire bi nga xam ne moom la ñu yore dañ leen a jox li nga xam ne ñaari fonction rek la ñu war a nekkal foofu culture bi ak communication la ñu yor ñoom nag nee nañu. nan laay nekkee plein direct ngay déglu ay ma yaakaar ni dafa am benn horreur de la technique ni koy horreur de la décorateur mbañeg la quoi est-ce que comprendre nga moom nag nee na wax dëgg yàlla gouvernement bi tëddeewul njaxaanaay ndax bu tëddeewoon njaxaanaay du culture rek lañ leen di jox ak communication dañ leen di jox leneen yoo xam te ne bii ñoom dañ ciy safalaale dafaa safalal cak cak cak jëgéñ mbokk yi lii nga xam ne mooy di assemblée nationale comité de parlementaire yi commencé nañu ko waaye ñii di opposition bi dañoo walbati ko wañ seen loxo daal di bañ ni ñoom daal ni nga xam ne ni bii nii noonu la majorité bi doxalee neexul leen ndax ni tax ñoom dañ leen a jox culture ak communication te affaire bi yemul ci culture ak communication bëggoon nañu yeneen ak yeneen ñu nekk di ko xeexal ak doxal waaye malheureusement ñoom ànduñu si samay wax nag wax yi ma dikkee ñaa la reportage El président groupe parlementaire bu liberté ak wàllum démocratie moom mu ñu xamal ni rek majorité bi yaatul ñu leen benn yoon ndax benn commission rek muy commission bi yor wàllum communication ak wàllum culture moom la opposition bi daal di gérer. Ah, ah, ah, Aliou Sow moo fi nekkoon rakk Macky Sall bi woon te ñu woon Macky Sall ne woon na comme Aliou Aliou Sow Aliou Sall laa la wax kan moo wax fii Aliou Sow kan moo wax fii Aliou Sow Aliou Sow Aliou Sow Aliou Sow rokoye dangaa dégg moo wax fii Aliou Sow moo wax Aliou Sall rakk Macky Sall Aliou Sow Aliou Sow moom mi nga xam ni Macky Sall dafi waxoon wax waxee ni du du du fal mbokkam mu fal ko euh, président commission des consignations mu nekk léegi mu ne day bàyyi affaire maire bi mu doonoon président maire yi bi nga xam ni nekkoon na ko waa maire bi ñoom loolu il faut ñu xool motif bi xamu loolu lan la ngay nekk di wax. jox ma ko Tafa ma seral sama yaram parce que kii da ngay réew a ay waay <laughs> moo ni fi woon ni ma ko jox dara de moo ni fi woon man du ma def wax wax ket waaye Macky Sall ci papam président de la république son excellence. kor may rem pay wadd fay sàll ay waay ji man de ma ma ki dégg ma naan ko kor ma rem fay wadd <laughs> tey mu rey ma kor ma rem fay sàll moom daal li nga xamante ne bii nii rakkam ji nee na daal fi ne nii day démissionné ci li nga xamante ne bii nii moo nekk président am maire Sénégal yëpp nan leen daal dina ci génn ndax seetlu na daal li nga xamante ne bii nii moom lañ ko mujjee fal moo ko ëppal foofu njëriñ nag tu ne du teew ñuy nataal. Anna Ndiaye Saint-Louis reportage. Aliou Sall dajjal ndogal fi nga xamante ni moo di présidence AMS. ñu wax ne maire bu Guédiawaye moom tamit directeur général bu caisse des dépôts et mu nekk ñaari liggéey yoo xamante ni mën na indi conflit d'intérêt. eh acca dee dee dee na te waa dee na tojoon na fi quoi rëbës ja yow du temps yooyu la arrêté woon yow temps yooyu nga violé woon yi wala wala du temps boobu daaw daaw arrêté wuñ la woon rëbës si je me bi nga tooñee doomu jàmbur bi sii ma yota ah nee laal bant man ma tëdd kon ci bant boo laalee bant man ma tëdd ci bant man xanaa maa la gën a mi tëdd ci bant waa roba si xam nga daaw heure bi lañu fi defoon euh, euh, kii lañu defoon seen euh, grève bi xeex xeex clitasie yi xeex xeex xeex tuuf tuuf far yàlla def am ku ñuy wax Ibrahima Mbow mu gaañu si léegi nag ñoom saisir nañu procureur nee ñu procureur di ñu bugg affaire bi leer parce que tamit wala quoi yow yow yaa ngi fa woon Birino tey nga ah! woon ah, Birino fii daal Seydou moo nekk yaaram bi Seydou moom kurus rek gel day wax tooy na rek waaye du jege du laal Seydou wanaa ko noonu tooy na tan <laughs> demal xool journal bi ñëwaat demal demal waa mais gars yi xam nga ça fait un an quoi waaw ñun bi ñu fi njëkkee bi ñu fi njëkkee aalu gars yi rëbës xam nga ni jàppal bàyyil gars yi cookee gars yi cooki cooki comme ñun yoruñu woon armée ñoom ñu yor armée raari ray am mbooj quoi xam léegi ça un an tey nag dañu daje woon doon ko màggalaat doon xoolaat encore une fois nag la ñuy def ba tegaat benn ñun waa chambre onze chambre treize ak chambre 12 ñun ñoo nekkoon doon réunion waat quoi xam nga affaire yooyu noonu reportage bi nag man la jaaxa jiixi yaa yaa yaa dundu gis zoo jeng yaa yaa wala boogees dem leen seetaan élément bi del si waan ngeen gis daaw ne mu demee woon yaa ñoo ngi ci waaye nag bu ñuy wax dëgg rek da xam dëgg moo neex yàlla mooy jamono bii ñu nekk mën na ñu wax ni diw moo rey wala diw reyu te képp ko nga xam ne yaakaar nga ne mën nga ñu ci leeralal dara ñoo ngi lay ñaan nga def bëgg bëgg voilà et on est à de la presse revue de la presse bi nag dañu koy déparé si li nga xamante ne bi nii mooy euh, les quotidiens de la yéenekaay les quotidiens yéenekaay nag affaire Kankura bu nga xamante ne bii nii moo am mbuur moom la xëy fësal li mu ko fësalee nag mooy Kankura bi déjà bi bii passé ne benn benn xale quoi nee na Kankura bi jaasi la ko dóor nde waa mbuur yi ñu ngi ma doon invité ñëwal 11 septembre xaw ma septembre bi ñëwal dañuy def kankura waaye kankura buy door a jaasi mbuur jagal leen ma waay ma dem ma yem sali rek quoi jagal leen ma waay yem sali rek quoi eh ki nga la waay Mr ne ak garaw gaay yi dañ koo génn ci gouvernement bi rek mu mer nag commencé xas di je di je affaire di xas ndeysaan xas na ay maki Sall xas na ay Marème Faye Sall léegi xam naa daa toog mu réfléchir xam nga réfléchiraat réfléchiraat xam ni affaire bi li mu wax jaar na garage mu xëyaat ni moom moo ngi jéggalu président moo ngi jéggalu waat yi ñoom Macky Sall li nga xam ni waxoon na ko tamit du ay coobareem mais xolam moo xawoon jeex si oto yu neex yi mu wàcc clim yu neex yi ak boo essence yi tamit xam nga yooyu daf neex booy bu ñu ko jékkee-jékki rek ñu dagga ko oh day mel ni dañu dagga saa euh, kii loolu la quoi loolu lay nirool quoi est <laughs> ay taf ay taf tam yaay tam xëcc katu kurus bu garaaw nga nag réej ak réeg réegin saay saay <laughs> dafa saay saay ah wax dëgg yàlla li nga xamante ne bii fol nañ ci teg moo nekk lan enquête de la yéen kaay booy enquête xam nga lu mu fësal xam nga dañuy jooy naan ay ñun non dara doyul dara doyul nga ay sàcc seen bourse yi ay ku saraxatul moomin bàyyi koog la mu yor étudiants yi de la ñu seen bourse yi euh, loolu nag moom euh, affaire Khalifa Sall bi tamit jeudi bii paase jeudi bii paase la waroon xam fan la bu ba léegi xamu ko nekk cent mètres carrés foo féete wap loolu loolu beneen affaire la mais Bruno yow da nga kii da nga am mbokk bu buñu ñu arrêté wala ah ah c'est tonton yow yëgoo kon ni gars yi léegi dañuy bàyyi ay prisonniers yi da ngay joxe deux cent mille ñu bindal la deux bindal la benn affaire boo xam ni libération yëgoo lool am na si kaso yu bari ah am na si ay kaso yu bari ah yoo xamante ni bii nii <laughs> comment comment le cerveau organise les audiences de la l'activité loolu libération moo koy fësal prisonniers yi am na si ñoo xamante ne bii dañuy def ay falsification de la libération maanaam yaa ngi prison nga bugg a génn am na benn kala boo xamante ne bii nii da nga leen di jóg deux cent mille trois cent mille ay bu fekkee rey reykatu nit la mu joxe cinq cent mille ñu bàyyi ko mu génn rek xëy renni renni maamu biri <laughs> na nga wax dara mag yow ma ñëwu ma dugg kii te si kaw wala léegi demal sa yoon amul fii ay après problème yooyu. lii daal mooy li gënoon a fas ci li nga xamante ne bii mooy journal bi jar na tiit nag bu fekkee ni prisonniers yi léegi dañuy am ay ñoo xam ne dañ leen di defal falsification de mandat de la libération loolu nag Moussa moo si comp as lof ma comp si as lof. voilà ça tourne encore une fois ma defaraat sama mbaxane xaw a silwi sa tuuti dégg nga maam nuyuwaat nañ leen kenn ku ci nekk si turam ak santam ah. Euh, mais mais mais mais quand même mais qu'il qu'il soit sérieux encore quand même xam lay wax ah c'est c'est des dormeurs c'est c'est agent la xaw ma doon mais yee ko quand même <laughs> yoroo lii dafa doy waar ah mais ku jóg pour ne ay joueur ngay dimbali da ngay dox ay affaires yu nga xam ne ni <laughs> euh, euh, pour pour la bonne marche mais yàlla nga marche ni mu commencé <laughs> sérieux ah. hmm? ah. ñu ngi commencé sëñ bi ah. yow nelaw nga jot ngaa for bët de entraînement booy <laughs> ah c'est commencé guñ waay. yow kay commencé woon nañu. sànq le Sénégal mais dañoo waat quoi. dem seulement la. déedéet ah non <laughs> euh, laajal kilo ko war a laaj. voilà c'est ça bonsoir tey nag nelaw journée foo nekk foo naan démb. ci booy ànd am lu jóge ci man génn wala. <laughs> non dara génn. c'est léeg-léeg yooyu daf may ah, da ngay faral di am ballonnement da ngay màbb léeg-léeg da ngay faral di am ballonnement. waaw feebaru kii la. Hmm. feebaru Bruno la. Hmm. ballonnement. mooy feebaru Bruno la moo tax moom ku muy filmer ci kër gi rek. Hmm. animateur bi du préféré mu nekk ci wetam parce que moom day faral di am ballonnement du bari wala voilà ah, dañ leen di nuyuwaat seen tur ak seen sant ah. tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ni bii nii moom mooy nekk li jëm ci fédération de la football fédération football Sénégal nag mi ngi avancé avancé wul ba xam fédération bi day copier wala copier wul. Euh, bu fekkee di ngeen di copier moom bàyyi leen ko parce que euh, même émission bii nii ñi koy am na ñu ko commencé copier. sama càmmoñ ma am ci Falcao euh, di monsieur Diatta monsieur Diatta ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay ku nekk sa turak sa sant. du nuyu waa Sénégal yëpp du nuyu tamit nelawkat bu ma àndil. dama xamul ndax euh, démb baaramundi wala yooyu quelque chose la fanaan. non kii am naa entraînement euh, maa ngi koy nuyu waaye ku ma xam la tamit euh, di ko sargal di ko tatagal quoi. ok Cheikh Oumar ñu ngi lay nuyu di la tatagal ak yooyu. bon maa ngi lay fay di jégalu ci nuyoo yi fi am nelaw yi fi am léegi. Euh, bon euh, di nuyu suma naataango bii nga ma booleel aussi lu si déggee nga xam nga ni saamen ngay fanaan non man du ma ko ñuy tëj ok waaw du ma ko ñuy tëj ndax judduuma ci loolu quoi bon di nuyu sunu waa ji waaw <laughs> waaw mën nañ ko waxee sax yi euh, baa aussi parce que ñoom ci li ñu ne ñun teg nañ ci suñu bët Eh, mais de toute façon di ko nuyu di ko tatagal ndax ku la waxal lu baax aussi waxal ko lu baax. li nuyu aussi euh, képp ku ñuy seetaan di la nuyu yow di rafetlu bu baax a baax invitation bi nga ñu yàlla na mu war na te lu jot yomb te li nga bëgg ak yàlla na mu bokk daje gëmal li nga bëgg topp li mu nam ndax ba yàlla na may jàmm bi nam na mi na mi yàlla na la fi nàmpunti ba nga hmm? naan nàmpunti. noonu nelaw yi moom nàmp yi ngay wax kan mooy nàmp. noonu namp kan la ñu namp pas namp pas namp nam nam Ah? nam namu. namu ah yeah. ah namu ah ok euh, waaw euh, euh, monsieur Diatta monsieur Diatta yéen yéen a ngi yor fédération bi su voté waat ngeen jamono yi sax ñu joxaat leen ko mais yéen da ngeen di dem basket dem na bu demi finale retourné. Mm. coupe d' Afrique moom waxaale wuñu ko moom 2002 ngeen géej finale. Mm-hmm. basket homme. troisième place. Hmm. yéen moom xanaa première place moom jëlee na jomb. même rythme bi bi. waaw ba bi sax même bit si sokkoor bi tamit doon nañ fi xanaa bit si euh, sokkoor bi. sokkoor bi dina sokkoor waaye bit bi daa mujjee nekk. Euh, trois koor euh, du sport moo tëddee noonu. mais sport du Sénégal dafa am ay non-dits lu tubaab di wax non di lu ñu waxul lu ñu waxul quoi. waaw mooy non-dits. waaw les non-dits waaw. ba ah, ñu ci bokk ñii réglé nañ. ñii réglé wuñ. ku mel ni kii xam nga kii duy tox sax cigarette. waay cigarette. Ah. sax du koy sex. Mhm. mu nekkoon day tox léeg te kooku si boppam ne moom agent joueur la. ok te du tox cigarette laa la wax. ok kon xam ne kon ñëwul ak lépp lu ko lay di wax ñëw ak si lépp. ok wala bu ñëwee tamit ñëwul ak bagage. am na lu manqué xam nga souvent nit dina tukki. Euh, du yore saak. xëy na ñëw na mais ñëwul ak lépp. ok ok mais moom débat bi moom débat mooy seen. ma ñëw ma ñëw euh, seen yu échec yu sama vie privée sa yoon nekku ci. di ngeen a jël échec rek sama vie privée nekku ci. waaw yoro bu leen ma. non kii damaa nekk dóor la question nga def alam ama kii alam gaam di def alam gaam di wiiri yooyu alam gaam bi laay bañ. échec tubaab dafa ne la preuve par l'épreuve quoi ou bien l'épreuve par la preuve saaga yi nañ ko arrêté ou bien man. tu comprends non déglu déglu non saaga. est-ce que lépp lu nga xam ne nii nit da koo sumb. waaw di jongante. waaw mais yow ñoo war a yow kese ñëwuloo pour gagner ko. waaw da nga ñëw ak ak ak équipe yi ñëw. tournoi la de douze équipes soit de quatorze. ngeen ñëw ku nekk di ko wut pour yóbbu ko réewam. am na ñu ko jëloon daaw xëy na mosuñ ko woon jël. am nga am dëkk nañ si di ko jël. mais ah, am na mais Nigéria mi dëkk ci di ko jël nag. kooku xanaa doo ma wax ni ma ñoom xanaa dañu. waaw mais mais dafa des ñooñu. xol yi xol yi xam nga Sénégal euh, yéen dafa am benn kàddu mooy faral dégg suñu biir ñuy naan benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. waaw te sénégalais xar nañ ko quatorze fois. comment ñoom dinañ la proposer benn li ma lay laaj yow nga may todd non nga ma non affaire bal laa laaj yow nga may wax affaire bopp bopp kenn du ko fubal nag yow waaw yéen a baaxoo di ne waaw benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yéen a baaxoo di ko wax waaw loolu Sénégal te nit nag booy wax dara danga koy jëfee. waaw fii dañuy toog xëy ñuy jooy jooy nañ leen fal diw nañ leen fal diw ci poste entraîneur wala ci poste li wala ci poste léeg li oui à l'unanimité ñëpp ne kii la. oui ou bien quatre-vingt pour cent des sénégalais. ñooñu ñooy ëlbatiku waat. waaw di la fakastal ku mel ni ñii. parce que boo li est-ce que joob nga li nga war a joob. pour mais da ngay joob lu nga war a joob mais balaa ngay egg sax lu nga war a joob ñoom dañuy toog léeg-léeg. ngay gas. ñu bàyyi ba guddi ñëw suul pax boobu. Eh, bu fekkee da nga gas ci boori. mais kañ ngay xóot. waaw boo gasee si boori foos. mais saa yoo gasee bëgg par exemple cent mètres si suuf. waaw nga gas ba am trente mètres ne dama sonn tey bàyyi ba bàyyi ba suba ma ñëw gasaat. waaw mais nga ñëw gas. tu te rends dañ ko suulaat mais kañ ngay am cent mètres ici au Sénégal. loolu mooy échec est-ce que loolu tuddee du tudd échec. mais loolu échec la kon ñëpp échec Sénégal parce que ñoom fii loolu lañ baaxoo def kii déjà lu mu def fii rek échec loo nañu. quoi. ay bu ma taxul du ma nekk si ku ne moom agent jour la et qui dit sport di non à la drogue. ok yow euh, euh, euh, monsieur. Cheikh quand même monsieur Cheikh yow lan moo leen métti. ci ci li nga xamante ni bii nii mooy fédération bi. ni muy doxee nii. final yi am dara la parce que dinañ ñibbi si waa léegi wecc de. ñu ko aussi waaw dama ci kontaan parce que il faut ma tontu ko ci li mu wax ci waxu suma tuxul. aussi parce que ñaata ñaata ndaanaan yoo xam ne ci sport la ñuy yëngu. ñu jàpp leen ci ay piqûre. ak ay jéegu mara waaw mënul ñàkk. waaw jéegu mara parce que ku nekk waaw ku nekk aussi ak sa objectif. ku ne ak di lay yëngal. Euh, lu yëngu lu ne aussi la ko yëngal moo ko ëpp doole. man loolu moom may yëngal aussi. comme loolu moo may yëngal. waaw yéen a ngi def am ah, kii la euh, amalgame ñëwal lan moo tax affaire bi doxul. Euh, li tax doxul. moom xam na ko. lan la parce que turam la wax léegi. waaw da ngay xool ci nit ki. ci objectif am nga xam ne kii fu mu jëm du foofu. parce que ñoom liggéeyuñu d'abord. ok parce que fi ñu bëgg a jaaree football bi. ak yoon bi football bi soxla moo dul loolu. ok Euh, mbay ci sa ancien man ci laa jëm. ancien footballeur laa. parce que euh, d' abord maa ngi doon euh, football ASC lëm gi. lëm gi oui bu mbëllëxee fa laa nekkoon. <laughs> oui non bul ree quoi ASC lëm gi bu mbëllëxee takk naa fa 10 34 ans. mbëllëx ci Jolof la boori yang yang la. <laughs> oui oui man foofu laa mës a football et puis ñun dafa am formation bu am solo bu ñu def te te te te te Sénégal yi ci yoon woowu lañ leen jaarlewul euh, gis nga ditax bi ay kóoni euh, euh, ay balu mbuus jour foofu la war a tàmbalee pour pour liggéey boppam parce que wow goo mu wow nga koy weq di ko yi di ko bulee loolu mooy dem ba di dëgëral say sidit koo daje ci àdduna bi danga koy duma mais su fekkente ne liggéeyuloo say sidit liggéeyoo sa expression corporelle bëgg a dajeek ay ñàkk mais dañ lay ñàkk doo dem. dañ lay ñàkk doo dem. kon yéen bi d' ailleurs Djibi Seye njool toj toj. moom mooy suñu président parce que ñun dañu jóg ngir jëlee leen ñoom fi ñu toog. Djibi Seye ancien footballeur. oui moom mooy suñu président actuellement. parce que moom aussi ancien footballeur la. parce que moom tam mi ngi doon football ASC e, euh, Ruuxma. ruux ma waaw ruux ma bu boo ne ginnaaw pour la nekk boo génnee pour rek ruux ma nga ci teg et puis moom euh, euh, footballé na nu ne aussi footballé na nu ne mu nekk ndaaraan loo xam ne aussi basket lu ne def na ko ci te xam nga basket ak football mënoo leen séparer parce que Usain Bolt mm-hmm. dafa daw ba mu nekk dem football pourquoi pas Djiby Sèye mënul football ba mu nekk mu ñëw basket wala mu basket ba mu nekk ñëw football. mais li tax ngeen bëgg ko gis mu dem ci parce que boo xoolee professionnel. man loolu laa jàppewul professionnel. parce que def spectacle ñu bàyyi la nga nooy. ñu bàyyi la nga football football rafet pour dugal loolu loolu loolu newul professionnel. professionnel mooy da ñafe ñu këddante mattante gajjan diggante lu waaye am jël. mais boo xoolee football professionnel bi ak football bi nga xam mooy nawetaan bi am na différence. parce que nawetaan day am bule am kaj ji am simmi tubay solaat am xëppante ndox am suul ay xorom. am suul ay xorom mais xorom amul ci football yi. bëgg ko nasaraan aussi bu Sénégal demee a xoolee. d'ailleurs maa ngi woo Alioune Cissé démb maa ngi wax am na ñaari booy yu ma ko jaay. yow waaw 14500 booy bu ci nekk moom laa ko jaayee. mooy booy booy Maxari ak booy Samba Ndiaye ñi ñi ngi ci dox nii quoi nga gis ni booy yooyu man maa leen formé et puis bu ñu ñëwee équipe nationale da gis ne parce que ñoom ay Albouri laax ñoom Lamine Sarr ñooñu dañu war a footballaat mais seen carrière jeexagul parce que ñoo gën a dëgër xale yi. ok ok ñoo gën a dëgër xale yi. président. merci beaucoup vraiment <laughs> man man. man dama xamul. <laughs> Ah, bu ko neexee mën na parce que xamul fu mu xam naa fu ma jëm ndax euh, bu ma xamoon fu ma jëm du ma xàmmee yoon bi ba yegg si fii. mais xaw ma ban Sénégal la ñu nekk. ok xaw ma ban Sénégal si kii euh, ce gars là me parle de Albourila. ay ñoom ñakkaso bu doon see jaraaf yaa ngi may dégg ay ay ñoom Lamine Sagna ay Victor Diagne mais xanaa gisul ñoom waaw dañu war a ñoom Sega Sakho <laughs> mën nañu yor équipe bi pourtant Lamine Sarr voilà ah Eh, nga may wax par exemple Birahim Diallo bu doon joué benn Mbossé wala Atanas Tene Casa Sport. war mais mais kii ce que ça va. même Ablaye Diaw même Ablaye na mën a fubal ak équipe bi. <laughs> si parce que Ablaye Diaw ni muy. ni muy expliqué. xam na football aussi. Ah waaw euh, man tactique de xelam moomu. mais la eh, muy déglu euh, footballu tànk euh, di tudd yàlla mën na ko exploiter. dama ko déglu ba muy wax. waaw mën a cell. muy wax di wax ba wàcc raay bi di ma wax ay alburi laax ak. ay Alboury Sow. ay ñoom Diène Faye yooyu de Stade de. mais yow lu leen teree jël coupe. moom laa xamoon yéen yéen waa Sénégal lu tax mënu leen a jël coupe. mais fa la ñuy ñëw parce que Sénégal musul jël coupe d'Afrique. fa la ñuy ñëw xam na man de bi ma juddoo ba léegi léegi fa la ñuy ñëw xam na yéen président de la République. waaw. dafa toog mu ne. waaw ultimatum la ñu lancé ñun. waaw ultimatum ça veut dire. cela veut bu ñu qualifié wul. day dissoudre euh, fédération bi. waaw dàq ñoom entraîneur yeeg yooyu. ba ci ñun ñii. ñun fa la ñu reggee ah. kon ku ñu laal dañuy ger ak yow. ok mais tamit encore une fois fédération. du gouvernement. ok du da ngay toog rek euh, xëy rek. bon dàq naa leen par ci par là non non non c'est pas comme ça. ok ok yow un jour gis naa la sa benn sortie nga ni équipe bi day génn dem football yi mais sénégalais yi ñooy liggéey équipe bi. mais ba ñuy fal Aliou Cissé. ñu amoon benn sëriñ bu dëkk euh, sa booru kër yi sax booru euh, Kër masaar foofu. waaw bu ñuy wax Keen Lunta. mais daf ñu liggéeyal ba ma gis coupe bi nii bu may reer suma kër di gis coupe bi si bool bi. bu may dem entraînement di gis coupe bi bu ñuy dem convocation pour amener les joueurs pour ay regroupement amay gis coupe bi. bu ñuy yéegee avion may dem may gis coupe bi. mais une fois que ñu sifflé potu meew ngay gis affaire bi dikkee la ay pot de lait. léegi loolu pour nu mu demee. mais ñoom la. nga xam ne ñoo ñuy xeex. mais gis nga nag du yéen yéen a aayul tamit nag est-ce que du ay yéen a ñàkk bu ñu amoon compétence du ñu jox affaire yi. mais compétence fii nag dafa ndànk. léegi compétence lekk compétence am. compétence lu lekk ngeen am. waay di la vérité ñu wax dëgg compétence su lekk compétence su lekk ku ko amul doo dox. tey bu ñu toogee fii bay discuter dañoo am compétence lekk ba suur. toog di discuter. non moom lekk bi mu lay wax mooy li ngeen wax ngeen def ko ci football bi ngeen def ko. si lekk ko waaw mais ayul. non si ah lu tax mu ñëw indi ñu dibi avant ñu def suñu émission. fu mu jëlee dibi bi. ayul fan la jëlee dibi bi. dibi bi foofu jëlee da nga wax si téere alxuraan ni lekk dafa ay lekk mais ayul. mais lekk li nga war a lekk aussi. lekk li nga war a lekk. mais dóor wango amul mais kan fii kan moo fi dóorul wango voilà. Bruno de day dóor wango. waaw ah, ok. ah mais mais <laughs> fii Sénégal ku la jekku da lay dóor wango. ñun nag mënuñu nekk si suñuy assiette. ok nekk si yooyu. ñu ne duñu lekk. ok lan ngay tëjee léegi voilà ñuy lekk. lu may tëjee di gërëm euh, Sénégal yëpp. di gërëm euh, Mansour ñaa ñoom Kaba Cissé Ziguinchor. ñu nga xam ne nii ak ñoom Mansour Mbour. nga am na si fédération bi lañ bokk. di ñaan tamit di ñaan tamit di ñaan tamit nga bañ ma andil genre yi parce que lu mu wax deli la. kii du tox bay naan ay damay tox damay pikiiru. fédération nag. Uh-huh. ñun ñoo ngi nii bàyyuñ tey bàyyuñ suba. léegi di ngeen am coupe wala du ngeen am coupe. coupe buñ ko amul mais ñun ñoo fi mujjee am coupe ñoo fi nekk mujjee ñàkk. du ci wax de. non da ngeen amul première bay mujjee est ce que amul ñu ñu jiitu te perte ba ñun. moo tax léegi kon continuité lay doon quoi perte bi. may gërëm ñoom bànn si sa yëpp. ok suma jabar man man li may tëjee mooy il faut que ñu ñu fexe xool joueurs yi nga xam ne ñi ngi ci réew mu fii. buñ leen tegee ñu jël coupe. xam nga yoroo. mais joueur bu amee ballonnement. ñii ngeen gis nii waaw. di tànk la. waaw la sew na waaw. yelleef sew na mais da ngay gis ni man maa ngi gis ci yow maa ngi gis ci yow ay bii yu bari bii si tànk yi pourquoi pas loolu ko exploiter yow. sa sama tànk yi nga gis bii. waxuma Sénégal de àdduna bi laaw kenn gënu la fi doon jour yow. loolu ay jamono la woon oogu laa doon ci instant bii may wax yow nii. oogu laa doon football latéral jeex na loolu mi ngi ci yow ba tey loolu doom la. bokkut ak booy yi nga xam ne dañuy jël ay fataay complet di leen ko jox ñuy néew yi topp ci teg du loolu. ok jour xel la psychologiquement. ok ok mais jour buy ballonné tamit di am ballonnement. loolu euh, euh, li ci ëpp hémorroïde moo koy def. <laughs> am na kii def si hémorroïde moo koy def. te boo xoolee. Euh, Sénégal équipe bi booy ci bari dañuy. mais attends Yoro ballonnement du loolu. non non non booy ci bari je suis désolé. du loolu mais jour buy waaj a fubal naaj bu tàng nga defal ko regroupement maafe. mais daa am ballonnement. ok euh, xam nga d'ailleurs bi ñu demee Mali ci basket bi. waaw ah. lan ah, ngay tëj lan ngay tëj mais non xoolal non bul dafa naan mu tëj ñu yow toogal rek non non mais toogal nag affaire bi jeex nag yow tam xanaa li muy wax nii mais yéen foog yéen fédération non non non eh kaay kaay kaay mais mais mu ñu sonal waaw kaay mu tëj mais ballonnement ku ko wax yooyu ñoo koy joxe li ñuy wax ay émorite quand même avec ça moom dafa yar émorite waaw léegi kii yëpp toogal toogal toogal. non man tooguma je m'en vais parce que. Ah, mais waaw toogal rek man sëñ bi yéen bu fi ah. nekk di xeex nag xoolal nag ah yéen waa fédération bi yow xanaa yëngoo tàngaay bi yow tam gaw gawuma la yow ah? man gawuma la. waaw léegi yow lan ngay tàggatoo parce que émission bi jeex na. tàggatoo bon loolu émoride la. waaw hémorroïde wax nga loolu. voilà hémorroïde la genre gi et puis jàngoro jooju la yor. li may tëjee mooy. nañu jëlaat suñu matuwaay. ok li ñu leen jox te matewuñu ko. ko nangu jox ko ñi ko mën. ok li ñu leen jox te matewuñu ko nañu ko nangu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko matee. Euh, di nuyuwaat encore une fois damay tëj débat bi parce que Sénégal musul jël coupe euh, encore une fois am na ay boy yu bees yu ngeen indi ah am na ay boy yoo xam ne dañoo bañoon sax ni duñu football Sénégal armée sax dafa am renfort armée. waaw bu ñu jaaxlee dañuy def renfort. ok léegi yéen mënu mënu leen jël tey jii ku mel euh, maa ngi nuyu waat Adji Savané di nuyu encore une fois Serigne Saliou Soxna Serigne Saliou Soxna maa ngi koy nuyu lu bare bëree bëree bëri Mansour Sow leader politique de la Benno Barack euh, monsieur le maire Daouda Ndiaye aussi maa ngi koy nuyu Fat Dia honorable Fat Dia euh, Serigne Fallou transitaire tamit ñu ngi koy nuyu di tëj foofu doonu débat bi ba ba beneen yoon ak yooyu noonu yéen yaa ngi toog yaa ngi nelaw